ci turu ministère de l'économie du plan et de la coopération bi nga xamné ne kuréel googu ma wax ci la nekk mooy fexe fësal euh, pour que euh, collectivité territoriale yi nga xamné ne euh, ñoom ñoo yore gox yi ñu léral len loi partenariat public privé boobu nga xamné président de la république mom moko ko mu amal njëriñ Sénégal ndax way bi Moy jox Sénégal benen yoon boo mëna réaliser euh, soxla yi nga xamné mom la dëkk bi am. atangi ni bi euh, samp bi décret d'application bobu génnee ci loi bi li wax légui ci tubab moy que ne euh, biñuy teug loi bi li ñuy ñëkkon laaj moy li doxal loi bi na gaaw génn donc loi bi mu ngi génn mars décret bi génn na octobre gannaaw bi décret bi génnee. li laajoon organes yi nga xam ne ñoo war a doxal loi boobu noonu yëpp samp nañ leen ci diggante bi euh, lim lim laaj ci jumtukaay teg nañ ko euh, donc mbooloo mi mu war laaj ci liggéey ko taxawal nañ ko te ci diggante boobu yi terewul commencé nañ waar wi ci administration centrale pour jël seeni projet pour préparer ko ci at mi waxtu wi ñu toll mën nañu wax ne ci projet yi ñu joxe woon mu nekk ci juróom-ñaar fukk ak juróom daanaka fukk ak juróom nekk na loo xam ne dinañ ko gën a fësal doxal ko ci fan yi ñëw projet bi li muy indi ci euh, askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo leen yore nekk euh, collectivité territoriale yi yore jiite askan wi mooy que ne euh, collectivité yi ak administration soxla askan wi dafa bëri waaw soxla boobu nag benn poche bu tudd kopparu budget Euh, collectivités yi mënu ko dékku moom kese donc euh, loi bi dina nekk beneen poche boo xam ne ñoom dinañ ci mën a jaar pour doxal seeni projet yooyu